ينشي دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها ينشي درس الثاني عشرة درس نيار فكو وربوك فكو أك نيار حامد مويلات يو أحمد أم أحمد حامد نكو ماذا تفعلين لويدا فيها أم أحمد يو يو أحمد دانك darsu ñaareel bi téere ñaareel bi daanaka yemu ciy jàngale li ci ëpp fekkoon nañu xam ko maza tafalina mooy booy laaj jigéen anti taktu biina la amma yaa umma ahmad yaa googu xarfu nidaa la munaada ba bu laafee dañ koy nasab loolu waxoon nañ ko yaa kitaabu ngay wax bu laafut waaye bu laafee yaa kitaaballaahi ngay wax parce que munaada bi dafa laaf bu dañ koy nasab mu ne ko abxasu damay gëstu anit dawaa yi si saafara alladi bi nga xam ne axastuhu jël naa ko minal mustashfa ci hôpital bi am si démb looy def mu ne ko damay jël garab gi ma jëloon ci damay seet garab gi ma jëloon ci hôpital bi démb maanaam garab gi ma bindaloon ci hôpital bi gis nga arab man naa am yow ni nga ko bëggee waxee ci olof arab bi moom du ko waxee noonu axastuhu minal mustashfa boo ko wax ci olof mën nga wax ne damay seet garab gi mu giñ ma binduloon ci opital bi léegi nag bu fekkee orof googu nga moom nga bëggee làkkee arab sa arab yi day jëf parce que dangay xool ni nga koy waxee ci olof rek nga ne ko waxee noonu ci arab mais arab fasaha mooy nga fexe nit ñi xam li nga bëgg a wax rek waaw na jël baat boo xamee nit ki xam ne yow lan nga bëgg a wax sooy waxee noonu doo sonn. mais soo waxee sa xel mi di di tarjuma jëlee ci langue bëgg yóbbu ci làng sa wax ji dafay fasu su léeg-léeg nga bëgg wax mooy yoo xam ne nii mën naa jëfe ni koy waxee ci langue bële ak ni nga koy waxee ci langue arab dul benn boo bëggee firi olof nag ci sa làkkam arab arab yi day jëfe waaye booy wax arab ne naa wax li nit ñi xam rek bu yàggee da nga koy miin dafay fasa mu ne xoo garab gi alal maktabi mu ngi ci kaw taabul bi fii xurfati si sama saal kayfa xaaluka al yawma na nga def tey laallaka yawma amaana tey axsanu moo gën a neex amaana tey moo gën a baax daal sa situation tey amaana maanaam sa bis tey mën naa moo gën a rafet démb mu umm Ahmad ne ko naam waaw ana man al yawma tey axsanu ci laa gën a am jàmm wala ci laa gën a kontaan tey daal moo gën a rafet lay firi walhamdu sant laa ñeel yàlla maanaam maa ngi sant yàlla mata tazhabina kañ ngay dem ilal mustashfa jëm ci hôpital bi sa adhabu danaa dem baada saatin gannaaw ab heure incha allahu nem soom na yàlla xaamit na ko maa man tazhabina maa man ànd ak kan tazhabina ngay dem maam tazhabina maa man gis nga arab yow boo doon olof danaan kan ngay ànd ak dem arab nag moom kan gi la mujjee ànd gi la njëkkee kan dem ma man tazhabina bu doon goor ma man tazhabu kan gay ànd ak dem loolu lay fi langue bu nekk da ngay xool ñooñu langue boobu ni ñuy waxee mais sooy wax langue fekk yow da ngay tarjuma da ngay traduire maanaam da ngay jël sa langue olof wala séeréer wala bambara gi bëgg na na koy waxee nga ne na nga ko traduire noonu ci arab doo wax lu nit xam. saa zabu danaa dem ma Ahmad ànd ak Ahmad attaarifina ndax xam nga attabi bata docteur alati bi nga xam ne zahabti am ci démb ilayha jëm ci moom naam waaw enri fois xam naa ko ismuha turam ak doctoratu Suat mooy docteur Suat bu jigéen la doctoratu mooy nag ku am doctorat na muñ ci docteur buy faj kooku tabib lañ koy wax yaquluna dañuy wax innaha naka docteur Suat ahsanu tabibatin mooy docteur bi gën a baax fil mustashfa ci hôpital bi maada tafaaluna lan ngeen di def yaa abnaa yi yéen samay doom naktubu dañuy bind alwaajibaat suñu warugar suñ devoir wala boog mooy tamarin mooy e, jéemantu yi la jox yi la sa ustaas jox wala ñu bindal la ko ci école bi nga war a dem kër ga def ko loolu mooy waajibaat mooy devoir yi wala boog yi nga xam daf leen war ngeen bind ko yóbbu ko ak tafamuna ndax dégg ngeen ad duruusa darsu yi jayidan bu baax naam waaw nafhamuha dégg nañ ko jeydan bu baax walhamdulilah maa ngi sant yàlla aya suratin ban saar taxfazuuna ngeen mokkal alaana léegi mu ne ko ama ana bu dee man fa axfazu danaa mokkal suratal mulk saaru mulk waaw ma haawulaay bu dee gaa yi fa yaxfazuuna danañ mokkal suratal qalam saaru qalam wa maada tafaal na lan ngeen di def xolo mu ngi lay jàngalaale damir yi bu ànd ak fexlu yi waaye loolu defe naa kii woon nañ ko lan ngeen def antum ne yéen dégg nga yaa banaati yéen samay doom yu jigéen yi naax na ñun alaana léegi nalaa bu dañuy fo afi waxtu amri ndax ci waxtu liggéey talxam da ngeen di fo mata taqra na kañ ngeen di jàngaat duruus sa darsu yi wa mata taktub na kañ ngeen di bind alwaajibaat seen i devoir marxaban naax na ñun xalaat naa jàng nañ ak duruus sa darsu yi wa katab naa bind nañ alwaajibaat devoir yi walhamdulilah ñu ngi sant yàlla ahsantum na rafetal ngeen yaa banaati yéen samay doom yu jigéen hakaza nii tafaalu lay def at-tilmizaatu élèves yu jigéen yi al-mujtahidaatu yee góorgóorlu kon benn élève bu jigéen at-tilmizaatu ay élèves yu jigéen kenn kuy góorgóorlu al-mujtahidatu bu dee jigéen mbooloo al-mujtahidaatu mata tazhabna kañ ngeen di dem li ziyaarati xaalati kunna pour siyaare seen اتعرف نان رقم ген انها نموم مريضة اجي فيبر لا نعم واو نعرف خم نان زاري كل الشفاء الله وينوك يالا سافر سنذهب دين دم لزيارتها فور زياركو هذا المصابي لنقول لكن ابو فيكو نغا بغو عرف كان جاي سيتي كو فيبر نان كان جاي سيتي سيتي لكن ابو فيكو سيتي كو بغو بغو شي عرام نا دنگا مانم من غير دي دي ريسيرش بعد يو خامني من غا جيل لو غنا يوم ازابو لزيارتها دمدم زياركو موي سيتيكو Hmm? dégg nga eh, incha allah nu mu soog yàlla yaa Ahmad ataarifu ndax xam nga mata yarjiu kañ lay dellu jiraanu dëkkandoori min makka jugee makk xaala wax na li ñeel mu Youssouf inna naa naka ñun sa narjiu danañ dellu fi rasbooyal xaadim semaine bii ñëw azunu damaa njort annum na ñoom sa yarjiuna danañ dellu yow ma sabti bisu samedi incha allah nu mu soog yàlla tamaarin saxi kurusel maa yi lii dikk تبحث دنجس أم أحمد يا أحمد علي مفتاح الشابي ستذهب دنا أم أحمد يا أحمد إلى المستشفى جمت أبتال بي مع زوجها عندك جكرم أم أحمد يا أحمد لا تعرف رقم الدكتورة سعاد دكتور سعاد أحمد أحمد يحفظ دنا مكان صوت القلم صار قلم وإخوته أم بكمي يحفظون دنا مكان صوت الملك صار ملك jiiraanu xaamidin dëkkandooru xaamidi zahabu dem nañ ila riyaadi jëm riyaad maanaam dangay xool ci gannaaw nam ko waxe woon bu fekkee lii mu wax noonu la nga wax sax bu dee du noonu nga ne xata njumte la jigéen na la al faayil faayil fii kullin ci lépp min al jumalil aatee jumla yi boo jigéen na la faayil foo nga jigéenal fexlu a taarifu ndax da xam al al arabiya langue arabiya axiya sama mbokk mu góor boo ko jigéen rek mooy a taarifiina ndax xam nga allugatul arabiyat langue arabia oxti yow sama mbokk mu jigéen loolu mooy liñ jàngoon ci naxu ba rek wala ci sarfu ba maada taakul la ngay lekk yaa Muhammad yow Muhammad def ko jigéen ay na tajlisu fan ngay toog fil fasli ci classe bi yaa Ahmad yow Ahmad mata tasabu ki ngay dem ilal mustashfa jëm ci hôpital bi yaa abi yow sama pap maada taqul la ngay wax yaa axi yow sama mbokk mata tarjuma kañ ngay dellu mu ne madrasati jóge ci école bi yaa ali yow ali ilaa man taktubu kañ ngay bind haasi risalati bi la leetar yaa bachir yow bachir aya suratin ban saar taxfasu mokkal alaan léegi yaa xëy yow sama mbokk atafamu ndax dégg nga darsu darsu bi jayidan bu baax yaa xamid yow xamid mata taxsilu kañ ngay raxas haasal xamisa bi simis yaa yaasir yow yaasir yooyu jigéenal ko maanaam ngay wax kenn ku jigéen ki nga jàkkaarloo annis jigéenal al faayil faayil fii kullin ci ret min al jumalil aate ci jumlay dikk te saa yoo jigéenalee faayil faaw rek da nga jigéenal fi'lu ay ne na fan ngeen di dem yaa ixwaanu yéen mbokk yi boo ko defee jamu mbooloo mu jigéen mi nga yaakaaroog ay ne tazhabna fan ngeen dem yaa axawaatu yéen yi jigéen ay ne taskunuuna fan ngeen dëkk yaa rijaalu yéen góor ñi daf ko jigéen nga ne yéen jigéen ñi alqahwatu kafe alqahwata kafe tashrabuuna ngeen di naan gis nga foofu nim la jàngalee jiital mafoolum bii tashrabuuna da ngeen naan alqahwata kafe waaye mafoolum bii du force ne day ñëw mujj ak fi'lu ba mafoolum bii bu ko neexee mu jiitu fi'lu ba bu ko neexee mu mujj fi'lu ba alqitta adribu maanaam muus mi laay dóor bu ma neex ma ne adribu alqitta bu ma neex ma ne alqitta adribu alqahwata kafe tashrabuuna ngeen naan ami wala ataaya yaa ixwaaneen mbokk yu góor yi def ko jigéen ataarifuuna ndax xam ngeen raqma haatifil jaamiati numéro téléphone université bi yaa ixwaan yéen mbokk yu góor yi haatif mooy téléphone jëmoom bi hawaatif haatif rek mooy kàddu gu lay woo te gisoo jëmm ja loolu bu njëkk kiimtaan loon waaye léegi nekkatul kiimtaan ndax téléphone yëpp loolu la ñuy def haatif nag root na ci hadis ndax am yonent bi nettali nañu benn waaye bu doon dox ba si mu dégg benn kàddu di wax ab niir niir mooy ndox buy wàcc nan ko nandalal toolu diw nàndalal toolu diw su ko defee mu gis ab niir wàcc ci suuf jugee ci asamaan mu topp niir bi xool fu mu jëm ak diw moom mu dégg turam mooy kan niir bi di dox di dox di dox ba si kanam mu gis góor goo xam ne mu ngi ci toolam di liggéey waaye mu ngay gas pour am yoonu ndox pour ndox mi bu ñëwee dugg ci toolam pour mu mën a roose tool bi a ah, ndox mi ñëw dugg foofu ci toolu waaji ak ci pax mi doon waji di gas dégg nga su ko defee ka déggoon xaatif ba mooy kàddu ga laaj ko yow noo tudd mu ne ko diw wax ko tur wu tur wam déggoon ñi di ko xoo ci asamaan waaye nag noonu lu ko xadis bi tere diw tudd tur ah mu ne ko luy sa mbir mu ne ko soo fekkee bañ nga ne bañ nga lu mooy moo wax la sama mbir maanaam boo bëggee wax sama mbir man tool bi rek laa am moom rek mooy sama wërsëg waaye su ma ko bayee ba mu ñor dama koy xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi ma jox ko miskin benn xaaj bi ma dundalee ko sama njaboot benn xaaj bi ma def ko sama bopp mu ne ko waaw kay loolu moo tax yow yàlla bëggul nga tumuraanke bu ñëpp raflee yow moom yàlla dana nandul sa tool su ko defee loolu secret la bu fekkee bëgg nga bañ ngaa ñàkk loo am xaaj ko ñetti xaaj lu mu toll ci xaalis rek ak ci alal lu mu mën a doon xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi jox ko miskin miskin yi nag say waajur yu ñàkk ak say mbokk yu ñàkk ci lañ bokk bal sax ñoo ci gën a yeey mbokk yu ñàkk ñoo gën a yeey nga sarax leen ci jàmbur dégg nga gannaaw boo joxee miskin yi benn xaaj benn xaaj bi nga def ko sa njaboot say soxna sey doom ak ak sa dépense kër yooyu courant ba yooyu benn xaaj bi nga denc ko banque pour sa bopp xam nga loolu ku koy def doo perte parce que yaa ngi denc dara. sa njaboot duñu rafle parce que yaa ngi leen dundal mais doo ñàkk saraxe parce que yaa ngi saraxe ah léegi nag boo koy def da ngaa am wërsëg nag waaye li may ragal nit commencé ko ba ci kanam alal ji bëri ba nga xam ne bu xaajee ñetti xaaj la war a jox miskin ay millions lay nekk wala ay milliards mu ne ah lii daa bëri waaw mais kuy doxalee noonu amaana mu bañ a ñàkk dégg nga euh, war a jox miskin yi bu fekkee jamono boobu sax. des naa gis na ko denc ku ñëw laaj rek mu jël ci loolu jox la li mu war a jox njabootam bu bëree it ëpp seen soxla mu denc ko ndax bu ñu amee soxla ëllëg wala boog mën nañoo am yeneen yoo xam ne mën na leen ko ci defal li mu war a defal boppam nag boppam la ñaareel kuy def loolu yàlla dana ko may barke ku koy def nag te yàlla tax waaye nga déggee ci ne ak lu mën a xew nit dafa war di góorgóorlu di liggéey hmm? ne ko nit dafa war di góorgóorlu di liggéey ndax waa ji dañ ko fekk muy gas pour ndox mi dugg ci toolam li ma tadaxakuuna lu tax ngeen ne ree yaa awlaadu yéen xale yi a taqrawuna ndax da ngeen di jàng alquran alquran kulla sabaahin suba su nekk yaa ixwaanu yéen mbokk yu góor yi a tasaluuna ndax da ngeen di laaj al mudarris sa jàngalkat bi asiratan ay laaj kasiratan yu bëri yaa awlaadu yéen xale yi atasmauna ndax da ngeen dégg al axbaara xibaar yi meneen isaati ci rajo bi kulla yawmin bépp bis maa man ànd ak kan talabuna ngeen di fo yaa abnaa yéen samay doom yi góor maanaam kan ngeen ànd ak di fo li ma tajlisuuna lu tax ngeen di dugg hunaa fii yaa rijaalu yéen góor ñi yii yëpp def ko jigéen defal faayil bi jigéen te boo defee faayil bi jigéen faw nga def faayil bi jigéen xawil changé al mubtada mubtada fii kullin ci lépp min al jumalil aatiya ci jumla yi dikk ilaa jamin def ko jamu ana man afa mu dégg naa dégg nga ana man ana man afamu dégg naa dars dars bi jayidan bu baax ndax nu ñun na faamu danañ dégg ak dartu bi jëy den bu baax dañ koy def jamu dégg ana man la azabu duma dem xawil changé al mubtada mubtada fii def ko jamu ana dégg na ak dartu bu baax wala afamu danaa dégg wala maa ngi dégg ndax ñun nafamu danañ dégg ak dartu bi jëy den bu baax ana man la azabu duma dem ila suuq jëm si marché bi kulle min bis bu nekk def ko mbooloo nax nu maanaam ana man ashkuruka maa ngi lay sant yaa ustaaz yow ustaaz ana man ajlisu maa danaa toog mm, danaa wala maa ngi laa lañ ko war a firee mu daaro la amaa man mu darri si ci kanam jàngalekat bi ana man alaana léegi aktubu danaa bind barqiyatan ab leetar amaama kulli jumlatin nekk na ci kanam jumla bu nekk siixataani ñaari tëggin lil fiili ñeel fiilu bi ixtar tànnal asiixata tëggin asaxiya bu wér waak mil motalil bihaa ci moom al jumlata jumla bi maanaam dana la bindal ci kanam tadrusu wala tadrusiina maanaam ñaari fiilu ñaari fiilu yooyu moom ngay dugal ci barab yu ñu def ay point noonu ay tomb fi sanatin ci ban at tadrusu ngay jàng wala tadrusiina yaa fataatu yow jànq bi ah ndax taarifu ngay xam wala taarifina taarifu da nga xam wala taarifina isma tabibi turu docteur bi alladi bi nga xam ne yaskunu dana dëkk amaama baytina suñ këram kër yaa ahmadu yow ahmad limaza lu tax taktubuuna ngeen bine wala taktubna alwaajibaat seeni devoir bil qalamil ahmar ci big bu xonq bi yaa banaati yéen samay doomi jigéen fi afi waxtil amali ndax ci waxtu liggéey talabuuna ngeen fo wala talabna yaa abnaa yéen samay doomi góor متى كان تذهب غيدا ولا تذهبين الى السوق جيمس مارتب يا ابي سون بابا عندك تعرف دا خم ولا تعرفين رقم هاتف الصيدليه نيمورو تليفون فارماسي بيا امي وسمياي التعرف ولا تعرفين دين ndax taqra'uuna wala taqra'na da ngeen jàng haadihil majalati bi la surnaat yaa axawaatu yéen mbokk yu jigéen yi afi ma haadihil jaamiati ndax ci tëddukaay université bi taskunuuna ngeen dëkk wala taskunna yaa xëy sama mbokk mu góor naxnu ñun laa alabu wala nalabu duñ fo kuratal qaddami football fi shawaari ci mbedd yi ay na tadrusu fan ngay jàng ante yow wax na ko adrusu maa ngi jàng wala nadrusu bil jaamiati islamiya ci université bi tudd jaamia bi këjug islaam université bi nga xam ne dañ ko askaneen islam boo xoolee fexl yi la bëgg a xam bu àndeek damaayir yi moom la la bëgg a jàngal bu àndeek damaayir yi noo koy noo koy tëggee yan tëggin lay am yooyu jàngoon nañ ko te amal sedem tara lam at misaal yi sami'tu dégg naa innaha ne moom axsanu tabibatin mooy docteur bi gën a baax fii mustashfa ci hôpital bi xam nga axsan day firi lu gën a rafet gis ngeen léeg-léegi mu firi lu gën a neex gis ngeen léeg-léegi mu firi lu gën a baax kon gis nga yooyu amul problème yaquloon danañuy wax innaha nag moom axsanu tabibatin mooy docteur bi gën a baax fii mustashfa ci hôpital bi inna al qur'ana nag al qur'an kitaabullahi téere bi yàlla la ndeysaan fi awalil jumlati ci njëlbeenu jumla bi nekk na ci inna baada xaala gannaaw xaala inna ak inna baada afaali uxra gannaaw yeneen fiil yi an na lañ koy jàng maanaam fii mu ngi bëgg a jàngale loo xam ne gaa jànguñ ko ci naxaw mooy boo utiliser baatu xaala wax na wala yaquulu dana wax wala qul lu daggee ci xaala daal xaalaak la ci xottee ko booy indi araf ba ca topp inna nga war a wax yaquuluuna annaha du baax yaquuluuna dañuy wax innaha waaye nag mu ne bu dee yeneen fexlu yi nag moom an na ngay wax sami'tu dégg naa annaha nashadu waaw nashadu innaka la rasulullahi moom dafa wax noonu rek waaye fexlu bi bu ko commencé inna bu commencé jumla inna la ñuy wax inna inna al qur'ana kitaabu la parce que inna gi moo commencé kenn du commencé anna waaye gannaaw xaala bu ñëwee boo waxee xaala ba pare nga indi baat bi inna ngay wax moom nag mu ne yeneen fiil yi anna ngay wax comme sami'tu annahu azunnu dinaa anna annahu ne moom ashadu maa ngi seeda annahu ne moom ashadu anna muhammadan rasulullah waaw amaa si isa jaaka munaafiqun qaalu wax nañ nashadu qaalu innaka la rasulullah seen wax ji lay nettali kon gannaaw xaala ak commencement jumla inna ngay wax gannaaw yenen fi'l yi nag ngay wax motam fi awali jumla nek na si ben jumla inna ba'da qala nek na ci gannaaw qala inna ba'da af'al ukhra nek na ci gannaaw yenen fi'l yi nag anna qultu innahu nangam waaye qultu annahu déedéet yaa ngi yàq aqulu innahu kaza wa kaza waaye aqulu annahu déedéet boo commencé jumla bi it inna ngay wax inna alqur'ana inna innal madrasa inna nangam inna nangam mais mënoo commencé jumla commencé ko anna iqra jàngal al jumla aatee jumla yi dik maa dabti hamsatu inna nga da nga takk hamsatu inna maanaam da ngay xool lim la jàngal hamsa gu ñëw gannaaw xaala nga xam ne jumlaay xaala moo jiitu nekkul nag inna gi day sës ci xaala gi waaye jumlaay xaala bu jiitoo ah hamsa gi ñëw wax ko inna bu dee si commencement jumla bi waxal inna bu dul loolu nag waxal anna moom noonu la war a jàngal iqra jàngal jumla ata jumla dik ma dabti xamsatu inna nga takk xamsatu inna gi wala anna azunu danaa njortu annahu nga wax wala innahu taalibun taaliba la jadidun bu bees xaala woon al mudarris jàngalkat bi anna taaliba ngay wax wala inna taaliba naka taaliba bi al jadida bu bees bi mujtahidun aji góorgóorlu la jiddan lool lii de lu bees la ci darsu bi moom tey samitu dégg naa annal mudarisa wala innal mudarisa naka jàngalekat bi maa jaa dikkut al yawma tey daal gannaaw xaala daal ak commencement jumla waxal inna bu dul loolu rek waxal anna anna laaha ngay wax wala inna laaha naka yàlla rabbi mooy sama borom xaala wax zamili sama morom innal mudarisa naka jàngalekat bi dégg nga maa jaa dikkut al yawma tey ashadu dinaa seede anna muhammadan ne muhammad رسول الله ينتهل ولا أن محمد إن محمد ولا أن محمد قرر له شيء قال وانا زميلي إن المدرس ولا أن المدرس ما جاء دي كل اليوم تين قريت جانغنا في الصحيفة تسور نالبي أن وزير الخارجية ولا إن وزير الخارجية قرر بس وانا كمينيسير انترير مينيسير بيجوختي والو bitim réew sa yar juma dana dellu min London jóge London nga dan suba azunu dana njort annaka wala innaka naka yow min Pakistan yaa ngi jóge Pakistan qaala wax ma tabibun docteur innaka wala annaka lasta nekkoo bi maridin daaji feebar azunu njort naa anna tabibaati ne docteur yi allaati yi nga xam ne xaraj na génn nañ meneen mustasfa ci hôpital ba daan léegi meneen wilayatul mutahida ñu jógee ci wilayatul mutahida wilayat mooy ay mbootaay wilayatu mooy kilifteef wilaayatu mooy koo xam ne yilif la ab gox wala nangam nangam léegi nag ay ay ay réewi réew yu daje ay wilaayat la mutaxida yu benn ay état yu benn ak taarifina ndax xam nga anna taalibata wala inna taaliba aljadidata bu bees bi alati bi nga xam ne jaa at dikk na xabla salaasati ayaamin njëkk ñetti fan taarifu xam na xam sa luxaatin juróomi loxo juróomi làng bu doon olof dégg na lay wax léegi nag yow yow yow bu fekkee da ngay da ngay tarjuma maanaam da ngay traduire olof bëgg koo wax ci arab foofu baatu afhamu ngay wax wala boog yëf xamul dana dégg xam sa luxaatin parce que da ngay traduire instant olof rek ngay traduire ci arab mais bu fekkee da ngay làkk arab moom da ngay jël baat bu kii rek xam na lang arab mooy dégg na lang arab taarifu wala tuux tuxsinu yooyu baax na ana wax uxsinu al arabiya mooy dégg na arab aarifu al arabiya xam na dégg na arab yooyu yëpp na إن الدرس ولا أن الدرس سهل aji yomb la yaqulun dañuy wax ne inna al imtixaana naka examen bi wala anna al imtixaana sayakun dana nekk شهر رجب awalin semaine bu a tasul na da ngaa njort inna nii wala anna nii dañuy faral di lottal haadihi lii asmaaw ayaami usboo yi mooy turu fanu semaine bi xam nga am nga semaine léegi semaine bi nag fan yi la lay jàngal yow mu sabt bisu samedi yow mu bisu altine yow mu isnayni déedéet maa ngi mu laxaat bisu dimanche yow mu bisu altine yow mu يوم الثلاثاء بسو ثلاثة يوم الأربعاء بسو الأربع يوم الخميس بسو الخميس يوم الجمعة بسو الجمعة يوم يفاني سمني الكلمات الجديدة بعد بس دواء غرب أدوية أي غرب تلميذ إرف تلاميذ أي إرف يغورنك هاتف تلفون ولا بوك كادو غو ديغو غيسو جمجا هواتف أي تلفون وزير الخارجية مينيستير انترير يا كان نون نك واخي دي واجباتنا اي ديفوار يا فان اي نون نك واخي دي واي وورو منك تلميذاتنا الف بو جيجن جامو بي تلميذات اي الف جيجن عمل لغي جامو بي اعمال اي لغي شهيد سيدنا يشهد زنا سيد جار بن دك ندور جامو اي دك رقم نيمرو ارقام اي نمبر رقم كو موي سني نمبر رقم موي نمبر رقم هاتف نمبر تليفون نانغام رقم نانغام بام جيخ أه، وقت وقت جمع اوقات اي وقت دحك رينا يرحكو دنا ري لول موي درس فوك نياريل بي الدرس الثالث عشر درس فوك ني تيل مومن غودوت دنگ المفرد لي جانغري اك جامو الحمد لله فيك جانغو نانكو مذكر غور لا تي جانغلي اك مؤنث جيجين بودي غايب كوفي نيكوت mu xaatab góor ki nga jàkkaarloog mu zakkar góor ak muannas jigéen mu koy wax mu zakkar góor ak muannas ak jigéen ci mufrad bi ak jamu bi ku fi nekkut xaamid xaamid yazabu dina dem aminatu amina tazabu dina dem xaamid xaamid wa aliin ak ali wa haashim ak haashim yazhabuuna danañ dem aminatu amina wa mariam ak mariama wa zeynab ak zeynabu na danañ dem huwa yazhabu hiya moom jigéen tazabu hum yazhabuuna hun na ñoom jigéen ñi yazhabna مخاطب أنت تذهب أنت تذهبين أنتم تذهبون أنتم تذهبنا أنا أذهبون نحن نذهبكم المتكلم أكمل موتري الجمل الآتية جملة يديك بواد الفعل نتك فعل بذهب في المدارة مدارة بعد إسناده قلنا بوك إلى الضمير المناسب شدمير بودبو في أي ساعة شبن إر ngay dem ilal jaamaat jëm ci université bi يا عائشة يا عائشة yaa aïchatu mufrad la comme que laafu daal tu ngay دوجل شيء بارز ذهب أتولى أبو طالب يوخل درن دم إلى المرعب جم شيء ترى ببعض درس جنا درس بي أنا من درا دم إلى السوق جم شيء مارس بين يوم الجمعة بس أجمع فقط دعو متى كن جاي دم لزيارة المدير غزيارة دكتور بيا إخوان ما يجوم كن جاي دم يا إخوان إن بوكي غوري أمي سما يا دنا دم إلى المستشفى جم شيء أبو طالب كل يوم بس بنك لأنها نحمم مريض راجي في بارلا Ah, ndax da nga dem ilal maktabati ci bureau bi kulla masaayin bépp ngoon yaa banaati yéen sama doomi jigéen yi lim laa lu tax du ngeen dem ilal mataari jëm ci aéroport bi maanaa ànd ak ñun yaa abbas yéen abbas mm, yow abbas mm, lu tax doo dem ndax nu ñun danañ dem ilal seen université bi bi siyaarati ujra ci oto bi nga xam ne oto fay la siyaarati ujra moo oto paas nga de boo bëggee yow dégg arab bul jëfeel sa wax na nga wax rek lu nit ñi mën a xam yow comprendre boo miinee loolu sax dangay ngay fasaa waaye boo bëggee wax lu yéeme bëgg ràbbu jumla yi ràbbu bu yéeme dangay fasu mais boo bëggee wax lu nit ñi xam rek yow doo sonn te looloo tax a jug langue de ay jaamu yàlla pour dugg aljana moom pour ñun ñu mën a waxante suñu biir la kon waxalu nit ñi mën a xam rek loolu rek mooy langue làng jëfuwut daal moo tax man langue lu su ixtilaaf amee ci langue rek xamal ne maa ngi ci mazhab bi gën a yomb waaw bu ko ñëpp corriger kenn nangu ko ci borom xam-xam yi rek man maa ngi ci mazhab boobu ndax langue pour nit ñu xam ko rek la kon jëru muy jafe abi sama papa dana dem ilal naa na'i ci usine bi fi saatil achira ci heure dix heures dégg nga axawaati sama mbokk yi yu jigéen ñi danañ dem ilal madrasati jëm ci école bi bil xaafilati ci bis bi ok laa nga ngoogu na yomb loola waral sarfu ñun dalañ jàng xam nga faala si sarfu gis nga ba ñuy jàng sarfu boo demee si téere sarfu gis nga faala nu compliqué mais da nga dem ba ci laam yow mu yombalal la ko di le ixtilaaf la gaa waaye dana la ko tënkal ba nga xam ne daanaka yow faala yëpp bu la neexee seen mudaara da nga koy xam parce que dana la ci wax anam goo xam ne yomb na lool jërë ñëpp ànduñ ci mais jëlal boobu rek buñ si yeggee allah danañ kii akmil motilal jumla aata jumla yi dikk bi war di fi'l mudaarin ci teg fi'l mudaarin munaasibin bu dëppoo fil faraaxi ci féex yi ndax اللغة العربية لانغ عرب يا سيدي يا سما سانغ نحن من كرة القدم فوتبال كل مساء بس بنك يا دوغل فوف لي مانكي أفي ما عاجل جامعة ndax ci tëddkaa université bi nangam yaa ixwaan yéen mbokk yu góor yi atujaaru commerçant yi nangam daka kii na moom seen bitig yi fi saati taasiya ci heure neuf heures al mudarris jàngalekat bi a darsa darsu bi ala saburati ci kaw taabul bi axawaatu hamzata mbokk hamzati yi nangam bil jaamiati ci université bi ana man alquran alquran kula sabaahin bépp suba fi ay maxattatin ci ban are maxatta mooy wàcc waay rek dégg nga wa qulu xittatun xittatun mooy sippeeku bakkaar xatta mooy sippi na wàcc na ko rek xam nga maxattatun dégg nga boo xoolee mafaalatun lañ ko tëgg maxtattatun ñaari taaloo ñu jël benn mu satug si benn bi maxattatun maxattatun ñaari taa nga fi gis ba maxtattatun la woon waaw taagu eh, njëkk gi maskam lañ jël jox ko xaar gi ba bay jël beneen taag gi daf ko sedd muy maxatta xatta la jugee wàcc na fi ay ci ban wàcc waay loolu lay firi yaa xëyee sama mbokk fépp fu ñuy wàcc dama leen ko tuddee oxti sama mbokk mu jigéen dana nangam salaasa luxaati ñetti lang min ay isaatin ci benn rajo ngeen nangame axbaari xibaar yi yaa fatiyaat yéen jànq yi saxi kuruseeral jumlaate jumle dik yaa mariamu ataarifu ndax xam nga raqma haatifil mudir numéro téléphone mudirat numéro téléphone directeur bi yada xuloon danañu dugg atulla yada xuloon danañu dugg ah daf laa war nga kuruse nag kon xamal na jumla yi mu indi baaxul yaa mariamu ataarifu raqma haatifil mudirati kenn du ko yaay xool dafa yàqu yadxuluuna danañ dugg a ak tullaabu taalibe yi alfasla classe bi qabla duxulil mudarris yi njëkk dugg ak jàngalkat bi foofu nag même boo ko corrigé tamit yaa corrigé rek waaye loolu am na ñu koy def ci alquran luxatu akluuni albaraaxiisu akluuni lekk nañ ma albaraaxiisu matti albaraaxiisu mooy faayil ba pare te faayil bi indi nañ fa faayil boo xam ni waaw la xam nga akluuni lekk nañ ma waaw googu mooy faayil bi du loolu la ñu waxoon albaraaxiisu tamit nekkaat faayil bi yadxuluuna atulaab yi mën naa dugg ci bunt boobu waaye nag ci li gën a siiw wérut dafa mel ni Cheikh Tidiane Sarif radiyallaahu anhu danay waxee usloob bu mel nii dégg nga mm, usloob bu mel nii alquran sax ni ñëw na ci dégg nga tabibaatu docteur yi jigéen yi yaxrujuuna danañu génn ah boobu baaxut min mustashfa ci hôpital bi fi saatil waahida heure une heure yajlis na danañ toog taalibaat taaliba yu jigéen yi al jurudu ju bees yi fi safil axiir yi ci sàppi gu mujj gi boobu baaxut ene tasab na fan ngeen dem yaay xawaan yéen mbokk yu góor yi wérut sama mbokk mu jigéen yadrus dana jàng fil madrasati saaniwiya ci école sanawi bi wérut maada taktubuuna ngeen di bind yaa banaati yéen samay doom yu jigéen wérut maada taakuliin looy lekk yaa abbas yow abbas wérut nahnu ñun asrabu dana naan naan alqahwata kafe kula sabaayan bépp suba wérut sa tarjon dana dellu abi sama papa mina riyaadi jugee riyaad filos booyel qaadimi semaine biir ñëw kooku wérut taamal si lan talal ما يريدك يذهب دندم ياغي حرف مضارع ذهب ضمير مستتر له يذهبون يا حرف مضارع دار يا حرف مضارع ذهب ذهب كوكو فعل مضارع لا يا حرف مضارع ذهب فعل مضارع ده ذهب يذهب فعل مضارع فاعل بلبغوا ضمير مستتر يذهب هو يذهبون يا حرف مضارع ذهب جنك mooy yadhabuuna ku ko fexe mu daara la waaye waaw gi mooy faayil nuun gi alaamatu rafi mandargaay rafaa rek la loolu jàngoo nañ ko tazabu da nga dem taagi mooy arfu mu daara wa zahaba gi mooy fenlu gi mais fii doo wax fenlu doo wax zahaba rek tazabu gi faayil bi damir mustatir taqdiru anta tazabu yadhab na dañ dem yaa gi mooy arfu mu daara wa plus zahaba mooy fenlu bi plus nuun gi nuun gi mooy faayil bi yadhab na dañ dem nuun gi mooy faayil bi tazabu da nga dem taagi arfu mu daara wa zahaba ko mooy fenlu ba dëgg-dëgg ci cosaan بريز فاعل بضمير مستتر تقديره هي هي تذهب تذهب نتاج حرف مدار بريز ذهب ما يفعل به واو ما يفعل كن دي علامه رفع ما نعرف تذهب هنا تاج حرف مدار بريز ذهب ما يفعل به ياغي ما يفعل به نون كي ما علامه رفع تذهبين انت تذهبين ياغي نور ما يفعل نون دي علامه رفع وخنا يذهبون اك تذهب تذهبان اك تذهبون يوخنا نون dégg nga tazhab bii ne loolu la ñu mujj wax it tazhab na taagaar fu mu daaroo zahaba gi mooy euh, fenl bi noonu gi mooy faayil bi doon noonu euh, niswa faayil lay doon azhabu danaa dem alif gi mooy harfu mu daaroo plus zahaba mooy fenl gi damir mustatir mu taqdiru ana mooy faayil bi nazabu danañ dem noonu gi harfu mu daaroo plus zahaba mooy fenl bi faayil bi damir mustatir taqdiru nahnu kon fenl mu daaroo ñu ngi xoolee ana كلام فاعل منقدم المستتر تقديره أنا أذهب أنا لا. نون تمن نذهب من نعم ضمير مستتر تقديره نحن فاعل أنت من عليك ضمير مستتر تقديره أنت تذهب أنت تذهب تذهب أما أنت من نعم ضمير مستتر أنتما يدنون أنتما أنتم نا يريدون هو ضمير مستتر تقديره هو يذهب هي دمي مثل تقدر هي تذهب أي آه، هما هما هم هن يرجم دمي مستتر كون ضمير مستتر في المضارع أنا عليهم ولا نحن ولا أنت ولا هو ولا هي أنا أذهب نحن نذهب أنت تذهب هو يذهب هي تذهب الكلمات الجديدة بعد بس سيارة أجرة أوتو باس أوتو باسك يبوجي دوك safun sàppi jëm bi sufuuf sufuufun ay sàppe axiir mooy lu mujj lii mooy eh, lu mujj yi in kaana yakfi bi فلنكتفي به إن شاء الله وإلا إن أريد الإسلام استطعت ما إلا بالله عليه توكلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته